Let us go with the concerned citizen one. A worried citizen has expressed his displeasure about how government relief food package is being distributed to the households across the country. Thousands of bags of rice, sugar and cooking oil have been recently announced for distribution to 81, 80, 84% household of the country to cope the effect damage of coronavirus. But Al-Khali Cham, a native of Burfud, who spoke to The Voice said, I am not happy with the way and manner things are conducted. Okay. According to him, the team taxed for registering houses kept his compound and a compound next to him, as he said. He disclosed, perhaps because we are living in a good-looking houses, adding that almost everyone living in these compounds uh, tenants. Uh, details of that on the voice ah, newspaper. Tidal, aha, distribution bi wow. mom ngey ne dañ skip mom keram ak uh, ked next to him wow. because ñom kër buñ dekk mu naam dañ gis ne dafa rafet. So te ñu dekk fofu yeen di ay luwas kat. Luwas kat lek. Ñoo fay luwas. So nga gis kër gi rek nga fone mom ñi mom dañ. Ñi mom de. ay. lepp sawa. Waaw loolu mom lu jara bay xel rek mom ñaan ñu conclude. Dafa bari miskin yi nga xamne moy loolu de. di sol koos fekk yi non ñoo gën a aajo sarax sax ñu <laughs> nekk si mbedd bi ah mu ngi noonu daal waaw su ko defee daal ñi gën see bàyyi xel la te xam ne du kër gu rafet rek bu fekkee kër gi moomu la ko da nga fa luwaas kooku xam nga ne yelloo na ndimbal soo ñu bàyyi si xel bu baax rek te xam ne daal yi non xam xam naa nañ ci dellu si nañ si dellu si